ñu leen di critiquer nee nañu taxaw Sénégal ils ont une relation douteuse avec l'argent ils parlent souvent de Khalifa Babacar Sall euh, Barthélémy Diaz aussi am nañu dénoncé Gabéji par rapport ni muy doxalee des voyages yu dul jeex euh, mais aussi bi ci gën a récent mooy euh, maître Ndiaye sa collègue maire bi nekk Thiaroye mm-hmm. moom it actuellement il est ñu koy wax en détention mm-hmm. ci loo xam ne xëy na ça n'a rien à voir avec la politique wala mairie bi mhm. mais n'empêche il a il a des problèmes avec avec la justice il y a aussi un autre collègue maire boo xam ne euh, Sangalkam ci yéen la bokk kooku tamit mhm. actuellement il a des problèmes avec la justice mu mel ne c'est pas seulement waa waa Pastef ñu am problème ak la justice yéen aussi am ngeen ay jafe-jafe ci wàllu woowee waaw mooy profité aussi foofu mhm. pour di massawu sama collègue maire yooyu heureusement le maire de de la Patte d'Oie génn na génn na mu des le maire des bases ni Jamil. mu des Pape Sow mu des Maître Ndiaye mais ñaan yàlla génne leen ñaan président Macky. Mhm. ñoom ay maire lañu dañ leen a fal mënuñu daw dem feneen parce que am na lu nekk seen loos mooy ndox askan bi dañ leen teg. Mhm. ñu may leen liberté provisoire ba def leen contrôle judiciaire ñu mën dem seen kër yi. beneen bi Maître Ndiaye li ñu koy toppee temps avocat la. Mhm. lu mu def moom mooy assister en tant que avocat avocat. moom lu si lu si lu si yoonam ñi dem jëli la war a xooli fi ñu nekk jàpp leen. loolu nga jàpp. waaw est-ce que xam nga dossier bu baax. wala da ko gëm sur parole maîtriser wuñ ko wala li xam ci presse bi ngay ngay commenté nii. maîtriser wuñ ko bés bi waxtaan nañoo ak maître Ndiaye ñun seet nañ ko waxtaan ak moom. Mhm. li nga wax dal na seen xel. te li ñu wax la ñu gëm parce que avocat la benn xam na lan la prêté woon serment. Mhm. ku xam maître Ndiaye xam ne du kuy caaxaan maintenant boo amee ay erreur quelque part na état bi situé responsabilité mais moom pour man mun nañ ko bàyyi mu dem liggéeyam bu ñu ko soxlaa woo ko mu ñëw. justement tey jii nii tey bi ñu ko téye est du xaw a yéexal yëfi tuuti. mais ca mairie bi nga xam ne mi ngi koy diriger. muy caaroy parce que exemple tey ay am na préfet yoo xam ne tey ba amul autorisation mënul signer benn préfet. Mhm. mënul saytu mairie normal. donc il cause du tort à la population de Thiaroye. di ko teg loxo de sur mer mhm. waaw. maître kii aussi euh, Pape Sow aussi. le maire de Sangalkam même chose pareil ouais. Jamil maire de l'opposition aussi. bëri nañu Jamil Sane aussi. même chose mais aussi est-ce que tamit bu ñu xoolee noonu rek ñëpp duñu wax ñu génne seen ay nit. non non aussi am nga njariñ quelque part ah. non mais je parle des des élus. mais est-ce que war nañu am un traitement euh, pour privilégier. mais bàyyiwul ay particulier bàyyiwul ay nit ñu dem seen kër ay liberté provisoire amul ñu ko am. si loolu justice moo marché ba egg foofu.